ministre de la protection de l'enfance et de la bonne gouvernance di nuyu mbooleem directeur bu fi nekk di nuyu mbooleem kilifa bu fi nekk di nuyu ñëpp ñi fi teew di rafetlu kàddu yi fi jib ci sargal monsieur le président Macky Sall madame le ministre mbokk yi ñëw ñëw sargal si le président ci nomination bi mu la def dañu ci am mbégte te li ñu fi dégg moo xam ci sa mbokk biologique yi moo xam ñi nga xam ni da ngeen a xamante donc ci politique mu xam tes collaborateurs li ñu fi dégg dal na xel rax ci doole suñu xarit suñu wëllëree Lamine Aïssa Fall wax fi engagement am ak détermination pour accompagner la ci liggéey bi nga xam ni président de la république jox na la ko moo xam ci mbirum politique moo xam ci liggéey bi sa collaborateur yi témoignage yi ñu def dal na xel aussi monsieur Omar Sarr déglu nañu ko bu baax a baax. Alioune Sarr c'est une compétence sûre peut-être que xamante wu ñu xamante woon <coughs> mais miinante wuñu woon li ma fi dégg tey am naa ci mbégte bu rëy donc monsieur Sarr nous sommes très contents de vous accueillir dans le landerneau politique de Thiès non seulement Thiès Nord mais dans tout les département de Thiès merci encore pour le travail fourni déglu nañu aussi bu baax sama xarit sama rak sama jigéen soxna Fama dara une femme engagée très politique ku baax aussi ku jàmbaare donc madame le ministre je crois comprendre que vous avez fait les meilleurs choix choix yi nga def mën naa wax tey ni que vous les avez fait pour moi je me les approprie parce que tout simplement wóor na ma ni ce sont des hommes de valeur toutes ces personnes associées à ceux qui étaient là en 2008 à ceux qui nous ont donc euh, accompagnés je pense que ça fera un excellent cocktail pour la victoire de 2019 mais seulement et uniquement au premier tour. donc damay gërëm ñëpp ñi fi nekk wax leen ni liggéey bi lii la wax nga ko sànq Diop wax na ko Diop communicateur ku gis décor bi xam ni c'est un homme de valeur parce que le jugement est facile vous n'avez pas parlé de votre personne vous avez parlé d'une personne qui a été le choix des Sénégalais 65 pour cent en 2012. c'est cette personne qui vous importe loolu moo tax photom rek moo fi feeñ ça c'est un choix extrêmement important et je pense que Thiès avait besoin de ce choix-là nous vous tendons les mains parce que tout simplement nous pensons que ensemble nous pouvons gagner et très facilement parce que les décisions sont là l'engagement est là la détermination est là parce que ça vaut la peine vous avez parlé de bourse familiale il y a énormément de choses à dire mhm. li ñuy wax ci président makisal ndax am na gis-gis ndax am na xam-xam te Sénégal ne ñu ne ndax am na diine mhm. je pense que ñett yooyu président Macky am na ko am na gis-gis mais ndax liggéey na weddi gis bokku ci moo xam PUDC moo xam Promovilles fi lépp sujet boo jël président Macky liggéey na fa lu am solo est-ce que il a une attitude de vision futuriste yaakaar naa leer na quand on plan on parle du plan du plan Sénégal émergent c'est ça la vision futuriste et c'est pour la jeunesse donc vous comprenez que kii je pense que c'est le meilleur choix pour le Sénégal pour ces prochaines années te maa ngi oo ñëpp ci l'unité et vous l'avez dit et ensemble je pense que nous vaincrons bu ñu àndee dinañu am victoire en 2019 maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci merci bés bi nag du sama bés naam sama bésu famille la ndax ñoom ñoo bëgg sargal président ndax fal bi ma fal di leen ci gërëm di leen ci sant sama bés nag naam ñëwagul bés bu ñëwee ngeen xam ni que Thiès aaye na bés bu ñëwee ngeen xam ni que cees benn la bés bu ñëwee ngeen xam ni président liggéey na fii liggéey boo xamante ni dinañ ko xalaat pour réélection am di leen wax ni ginnaaw bi ma gërëmee ñi fi nekk ñëpp duma dugg ci détails yi di lim ndax dafa guddi ba pare di jéggalu ci yàggaay bi di massaw ku nekk di leen wax dal leen ak jàmm di leen jaa jaajëfalit li ñu fi indi tey muy sargaal bi sama famille ñoom ñoo ko décidé pour def ko loolu moo tax yéen waa Thiès gisuleen ci seen bopp xëy na mais bés bu ma aaye militant APR militant Benno Bokk Yaakaar yéen yéen ay organiser seen bopp et su boobaa Thiès dina riir di leen wax ni ki yore woon euh, central bi léegi dafa ni que gisul fenn sama photo sama photo warul feeñ président moo ñu ñor président moo ñor APR président moo ñor Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu war a teer suñu égo liggéey ngir moom lu fi defu moo ko def nit deful dara ku mu falit da liggéey pour moom donc suba ba ngoon jot guddeeg bëccëg ñu ngi ci ginnaawam ñooy bàyyi faalam dëgg la li ma bëgg a wax nii tey duma fi nekk di fësal liggéeyu président sama directeur directeur protection de l'enfance ñëw na léegi junj leen ci couverture médicale euh, universelle lu mu changé vie wu population yooyu tungu ne du teel ñuy nataal du teew ñuy nataal ma bëgg leen woon na woowal kenn koo xamante ni bourse familiale yi changé na vécu am changé na quotidien wam pour mu wax leen lu président Macky Sall defal ko defal population Thiès defal population Sénégal yëpp à travers bourse de sécurité familiale yi waaw soxna si donc maa ngi leen di jox soxna si pour vous dire que ni du lu ñu du lu ñu préparé wala lu ñu manigancé man sama bopp xaw ma sax turam moom si boppam moo bëgg ñëw témoigner ma bàyyi ko mu wax ngeen déggal seen bopp su paree ngeen xool ndax li président def doy na leen wala doyu leen merci. waaw ah, jërëjëf madame la ministre maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant maa ngi tudd Ndeye Fatou Thiam ñu gën ma xam ci Alima Thiam. ma dëkk Medina Fall Thiès may wax ci affaire bourse familiale bi ndax dafa am fu ma jëlee am fu ma yóbbu ma nekkoon sama borom kër yàlla def li gën mu bàyyi maak ay xale xale yi nekkoon seen diggu jàng mais njàng mi dem nag bay sooxe lool bourse familiale boobu tax sama njàngu doom yi jubbanti ko ba mu jub macha allah ba samay doom di jàngaat ndax xale bi war na am kayitu juddu xale bi war na bu feebaree faju xale bi war na sol yére xale bi war na jàngi te macha allah lépp ngi ci bourse familiale boole kook ay mutuelle de santé ci biir bourse bi boo feebaree faju say doom faju bu fekkee sa borom kër a nga fa moom it day faju kon ñoo ngi ñaan président Macky Sall bourse familiale bi lim ci def mu gën ko yokk ndax yokk bourse familiale yokku teem la te bourse familiale bi ñun ñi ci nekk doon ay bénéficiaire ñoo ngi àndandoo bëgg a falaat président Macky Sall au premier tour Macky Sall bourse familiale bi mu yokk mooy sa yokkute ca kaw ca kanam macha allah président ñoo lay remercier. jërëjëf mbooloo mi yéen a ko déggal seen bopp bourse familiale yi gis ngeen li ci président def. kii nee na wax na leen fan la ko fan la jógee ak fan la egg donc ñii ana ñi doon dingat bourse familiale ñoom seen bopp ñoo ni woon ndool la indi ndax dañu joxe woon benn chiffre. ñu dem yokk chiffre boobu ñoom seen bopp ñoo demandé ñu yokk bourse familiale yooyu donc pour wax leen rek que réalisation président mën nañ ci wax fii ba suba te du jeex su neexee yàlla nag si suñu programme bi dinañuy jël par secteur benn par benn ñu woowal leen niñ leen woowalee ki ñëw léegi taxaw mu waxal leen seen bopp wax changement yi nga xamante ni président def na ko pour pour population yi et lan la indi un plus ci ñoom bi ma weesoo loolu dinaa wax tuuti ci protection de l'enfance ndax dañ ma ci dañ ma ci invité protection de l'enfance président Macky Sall ci gis-gisam bu leer ci gis-gisam bu xarañ dafa gis ni ndaw mënuñu ko tàggat te defuñu ci moom euh, jëmbët bi mu nekkee ci ndaw bi loolu mooy lan mu boole bonne gouvernance ak protection de l'enfance plan Sénégal émergent ci axe 2 dafa wax développement du capital humain axe 3 mu ngi ci bon gouvernance soo bëggee am nag ndaw bi gën le meilleur citoyen pour demain da koy commencer léegi ba mu nekkee xale nga ko ciy tàggat mu màggaale ak loolu pour que ëllëg concept yi ñuy wax ak principe yi ñuy wax ci bonne gouvernance mu mën ko màggaale nekk ndaw bi nga xamante ni tëgg bi gën moom la ñu am protection de l'enfance boobu mënuñu ci wax aussi te waxuñu waajur yi donc en attendant yeneen activités yi di ñëw di sonjaat waajur yi di leen wax que ni sunuy waajur fa ñu ñu tegoon démb ngal la ngal nañ fa teg sunu ay njaboot puso bi bu mu mës a réer si ñun comme ni ma koy waxee dama bëgg ñu dégluwaat xale yi dama bëgg ñu aaraat xale yi dama bëgg ñu éduquer xale yi pour que ñu am jeunesse bi gën mën a am suba avenir bi gën ndax sunu tedd ñun ñëpp ci la nekk bi loolu weesoo ma leen di wax ni waa cees ñëw naa ngir jàppale leen xëy na soobuwuma ci woon soobu naa ci sama waa mais dama ñëw takk ci rek waalo waalo du dellu ginnaaw waalo waalo du ragal waalo waalo waalo waalo du wax muy du wax muy deñ naam yëf yi metti na lool xam naa ni wit commencé na metti gis naa li may xaar li Fama Aidara wax léegi fit bi nekk ci moom bu mel noonu moo nekk ci man walla bu ko ëpp xoqatal du ma tax a dellu ginnaaw saaga du ma tax dellu ginnaaw maa ngi takku lëkkaloo ànd ak sama frère Lamine Ndiaye ma koy woo fii su mënee ñëw pour wax leen ni bi may wax fii lañ koy commencé ci caali ndax sama frère laa fi nekkal laa fi nekkal gis ngeen message bi mu lancé dara mënul dox suñu diggante man ak moom bi ñuy xamante boobu politique doxul suñu diggante politique mënul dox suñu diggante d'autant plus que ñun ñaar ñoo bokk même parti donc xam leen ni à partir d'aujourd'hui on va travailler étroitement la main dans la main fu ngeen gis Lamine Ndiaye gis ngeen ma ci wetam su ngeen ma gisul ci wetam sama engagement moo ma ko mayul unité boobu su commencé fii HLM Thiali maa ngi woo zon zone nord su pare su paree zone nord commune yi nekk ci Thiès yëpp nii laa bëgg nu ñu jàppaloo suñ ci jógee dem ci département bi xam leen ni Baye Fallou Macky mu ngi fii pour ñu àndandoo ñun ñëpp liggéey ko liggéey bu sell boo xamante incha allah 2019 si kaw si kanam rek du ñu tudd kenn ku dul président merci beaucoup. di nuyu kilifa yi fi toog di commencer par le chef euh, le délégué de quartier Amady Cissé di nuyu le monsieur le ministre d'État ak les ministres yi fi toog euh, xam naa nag je vais aller très vite parce que. xëy na sunu miin instance politique yi bariwul amul ci trop expérience euh, waaye li ñuy wax rek ce sera chose de très concis juste quelques mots pour dire que li ñu indi fii tey dañuy ñëw pour def un petit témoignage si nomination bi nga xamee ni le chef de l'État le président de la République Macky Sall euh, def na ko te ñun ay Thiès waa yoo xamee ni Thiès moo ñu gën a lem suñu gisee le président de la République jël ministère de souveraineté le ministre des forces armées mu nekk un du commerce mon homonyme nekk un Thiessois à côté des forces armées et du commerce, le président de la République rajoute une pour lui confier la bonne gouvernance et la protection de l'enfance. Cela fait quatre secteurs stratégiques dans ce pays-là. foog naa réew amul lu ëpp kaaraange amul lu ëpp koom-koom waaye xam nañu président ni mu xel xale ak gouvernance madame Ndeye Ramatoulaye Gueye qui a été récemment nommée ministre par le président moom it mu dellu jëlaat deux directeurs stratégiques le directeur de la de la bonne gouvernance nekk fii di Cheikh Fall May nekk moom tamit un Thiessois madame Ramatoulaye jëlaat un autre directeur en ma personne daal di ñuy la protection de l'enfance loolu foog naa le président à beaucoup fait pour Thiès euh, je parle également sur le contrôle des cadres du parti qui sont là accompagner leurs sœurs je les salue au passage di nuyu waale Marine Diop moom bokk na si ñi nga xamee ne jàpp nañ suñu loxo pour ñu ñëw jàpp si waaye li ma doon wax rek pour aller très vite sur les réalisations yi ñu def ci biir Thiès ñun ñu amal solo mooy njëriñ bi Thiès di jëriñu ci politique bu président yàlla def na les bourses familiales yi la délégué de quartier wax léegi ces bourses familiales l'opérateur sociale bi koy mettre en œuvre dans toute la région de Thiès j'ai été à la tête trois ans donc suñuy wax ci bourse familiale à Thiès dinaay déglu waaye man maa mën a apprécier li président def dans les familles à Thiès quand je quittais l'opérateur social à la tête d'une équipe d'experts ñu ngi fii toog ñu conduire ce projet Thiès bénéficie actuellement de 31 000 familles de bourses de sécurité familiale 31 Je pourrais vous donner les détails région par région, commune par commune, quartier par quartier. Le fichier est disponible. 31 000 familles bénéficiaires, faites le calcul. Nous avons 100 000 francs, 25 000 francs par trimestre, tout une. 31 000 familles bénéficiaires, si chaque famille perçoit 100 000 francs, ça fait 3 milliards 100 000 que les bourses dans les familles à chaque année. 3 milliards de francs. dans la commune nord bi ñu nekk y a 1186 familles bénéficiaires de bourse dans la commune et les statistiques sont disponibles dans les 49 communes de la région de Thiès. Il y a mon ami technicien qui me disait, mais le gros lot cette année est allé à Fandel. Mais dans la commune nord, avec 1186 bénéficiaires, ça fait 111 millions de francs que le président injecte dans la commune Nord. Dans le quartier Diakhaou-Thiali, ils sont à 80 familles de bourses. Lamine Aïssa va suivre ça désormais. Ces vous pouvez calculer les retombées que cela fait dans chaque quartier chaque année donc ñun suñu waxtaan ci loolu c'est pour techniquement apporter en plus apporter les éléments clés vérifiables yi nekk fii mais au-delà au-delà de l'argent que le président donne nous avons été dans les familles c'est autour de ces bourses que nous avons organisé ce qu'on appelle, appelle, ici les AVEC, qui sont à 680 AVEC entre Thiès et Tivaouane. Le leader est là-dessus, avec des statistiques fiables. Les de sécurité familiale, nous avons proposé au ministère qui s'occupe de cela de faire en sorte que tous ces bénéficiaires puissent avoir des activités Ils ont accepté et ils m'ont confié ce projet l'année dernière parce que je fais partie de l'équipe qui a défendu ça à la Banque mondiale pour le Sénégal. Et il y a eu résultat très positif. Le projet Yoku Kom Kom qui est en de se dérouler, la phase test se déroule à Tiwawan et c'est à Thiès, effectivement. Donc nous avons besoin de cela pour dire que ce que le président est de faire à Thiès, nous pouvons le défendre partout, des statistiques à nous avons pensé qu'il faudrait au-delà des chiffres wane impact bi xaalis boobu am ci kër yi nous avons fait des reportages famille par famille les 31 000 chaque famille nous avons un travailleur social qui va les familles nous avons un répertoire que nous appelons carte familiale ce sont où nous avons listé tous les enfants qui sont dans les 31 000 familles. C'est pourquoi, car notre sœur Ramotla est pleine de vertu, est venue nous tirer de là, elle ah, moi je suis dans ça à Thiès depuis 20 ans. leneen soxla ñu dul lii liggéeyal xale yi donc qu'elle nous apporte dans une autre station ah ñun am et je l'ai quand le président donne des ministères à Thiès, Augustin, Alinsar, Ramatoulaye, et que nous allons choisir des directeurs techniques à Thiès, dont moi-même, Amatou Laï pour Thiès. Il faut a se batte à côté du président de la République pour Thiès. Ceux qui me connaissent, je discours mais je demeure un homme de conviction. J'ai été là depuis 20 ans. Je ne Ramatulaay laa xam ne mën na ma dugal si lu nekk parce que je l'ai pratiqué maag moom ba ma ko xamee léegi ça fait 30 ans Ramatulaay je la je la connais mën naa ko wax fii depuis 30 donc tey su ne nee jógal fii nga ñëw fële ci wetam je sais quelle sorte de li ko dëggal mooy le l'homme le plus renseigné du pays ki réew mi soxal ki am ay yu kenn amul moo xam lu tax mu tànn Ramatoulaye Gueye pour confier ko ne contestons le choix président de la République parce que lu mu def xam na fu mu ko teg donc si le président Macky Sall le fait je suis le premier à confirmer le choix du président de la République sur la personne de Ramatoulaye Gueye donc loolu mooy sama message pour dire que je m'engage à côté de cette famille de ma sœur Seynabou Ndiéguène qui est là moom it suñu diggante yàgg na xam na ko donc euh, ñu baal ma ci guddal parce que politiquement je suis encore à former waaye am na soxna soo xamee ne dafa jooy xatraayu ni man da ngeen maa jox bourse familiale may wër président pour gërëm ko sant su ma déggee ñu naan bourse familiale amul njëriñ woo leen ma ma témoigner ni leen dinaa leen wax bourse bi fi ma ma fekk fi ma jëme ak fi ma agsi waaye dama mënul jot si président pour ni ko jërëjëf tey bi mu ñëwee toppaat ñu ñu ne ko ah foofu day xat mu ne kon filmer leen ma ngeen jox ko kilifa yi te loolu man mën naa ko témoigner ndax nit ñi daan nañ jël kaar jógee Cenaba jógee Taseet jógee Nooto jógee fu nekk ñëw ni ki ñu jox bourse familiale yi lañ bëgg a xam ndax moom lañ bëgg a sànni suñu carte donc baax na ñu jox leen information boobu que c'est le président de la république de Faye que nous remercions infiniment je bépp président du groupement bu lëkkaloo ci fédération des groupement des femmes de Jaxaw Caali yi fi teew ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoo fi toogal fédération des associations de jeunes de Jaxaw Caali ñu nuyu association pour le développement des jeunes de Jaxaw Thiali ñu gën koo xamee ci turu AJDT te suñu doom suñu xarit bi ñuy wax Pape Thiali jiite ko ah di nuyu ki nga xamante ni moom mooy coordonnateur u euh, patriote jàmbaar di Max Diouf mu ngi fii ñu koy jébbal suñu nuyoo di nuyu kilifa yi yëpp ah, Ah, monsieur le ministre Augustin Tine kontaan nañu kontaan nañu ci président Macky Sall yow xam nga ne ñun dañoo mës a bég ci acte yi président Macky Sall di posé waaye tey la raw tey la raw te ñu ngi sant yàlla ba mu jëlee kenn ci ñun di yeewoo ci gox bi di doom ci gox bi di jarbaat ci gox bi di sët ci gox bi di mat ci gox bi di rakk ci gox bi ñu koy wax Ndeye Rama ñu Ndeye mu jël ko dénk ko lu rëy ci réew mi li nga xamante ni politicien bu nekk tey bëggoon na cee jot suñu borom dogal ne moom la ko suñu président jox kon dañuy kontaan ci loolu ba tax na lépp lu ñu laxasaay woon tey la ñuy gën a laxasaayu ndax tey la ñu gën a ci ndombo tànk bi ñu takkal suñu rak suñu mag suñu sœur Ndeye Rama dañuy jël kàddu gi rek di wax di wax képp koo xamante ni da ngaa nekkoon ci goxu jaxaaw caal yéen a may dégg tey gis ngeen ni mbir yi demee daanaka ala daaw me lañ koy wax kon na ñëpp mànkoo lu waay doon def na ko xeet ñun ñëpp nañu lëkkaloo nañu maase xam ne tey jii jaxaaw caali am nañu kilifa yàlla yàlla mooy joxe cër keneen du ko joxe yàlla moo tànn kenn ci ñun jox ko ko ñun ñëpp danañ ko jàppale. may wëlbatiku ci madame la ministre Ndeye Rama Guèye Diop di la wax ne dalal ak jàmm bés ni ki tey bu njàqare doon amit bu mu amat bés ni ki tey bu ragal doon am bu mu amat bés ni ki tey bu tiitaange doon am bu mu amati ndax say góor ñoo lay taxaw. président Macky Sall dénk suñu jëf la keneen du ko yàq ñun ñoo koy aar yàlla xam ne tey yaa ci tànt bi toog di la jox sa wàccuwaay di la wax dalal jàmm di ko commencé ci sumu kilifa le ministre Augustin Tine qui est le coordonnateur départemental du ministre madame Ramatoulaye Gueye di nuyu nag képp ku ñu àndal ainsi que DC muy Demba Diouf moomu toog mbooloo bi waruma woon sax a jël parole waruma sax a wax waaye dafa am témoignage bu may def tuuti rek ndax dafa am fu ma ndeyram a fekk jële ma fa am décision bu mu fekkoon ma jël mu jële ma ca lii may bëgg a wax damay jël comme témoin notre coordonnateur départemental ici présent bi Macky Sall dee ñëw Thiès am ci ñu mu yaakaar wóolu ko lool ñu ànd ak moom liggéey ba yàlla def li mu def parce que dañ koy écourter rek ndax li dex ci diggante fi ñu àndeeg Macky Sall ak fi muy faloo dafa toll liggéey kenn mën waaye yàlla ci kattanam yàlla ci yërmandeem moo indi Macky ci xolu nit fal ñu ànd moom di liggéey ba 2017 ma ne man nag sonn naa sonn naa ndax am na âge boo xam ne boo fa tolloo li politique laaj dëgg ngir am résultat am na âge boo xam ne boo ta tolloo mënatoo ko xam ngeen lu tax politique ku teel a tëdd ko politique kuy wax waxu kaw ak waxu suuf mënu ko politique ku dul wax dëgg mënoo ko politique ab naafeq mënu ko xam ngeen ki man mooy ki def lii am ngay moyen am nga xaalis mënoon ngaa wuti ay kaar à travers le Sénégal ñëw di tiital nit yi wan leen ni lii laa am mais defoo loolu danga ni samay mbokk yow mi ci de say mbokk ak say xarit ñooñu dañuy sargal président ci ndombo gi nga xam ne moom la waaye yaakaar naa ne soo doon meeting dana demee neneen say mbokk koy def nga fekk nag man ma bëggoon a jël recul sonn lool ni yàcc lool te bu sama xel demee ci Augustin Tine du ma xam lu may def ndax jàmbaar du la ma sama ko gis bi muy ànd ak Macky Sall xaalis amul bi muy ànd ak Macky Sall poste taxul mas naa ba ne mu ne amee ko sonn nañu mu ne ma lu ma ci góobee dinaa ko tax ndax ma gisaalu falu xaalu ma ci la mu digaale woon ak ñun ca loola la ne looloo tax bi ma jëree décision sama xel ni yàlla ci moom ma dem toog sama kër ni pat ba yàlla indi fa bor chef de cabinet titre honorifique la maa ngi la ciy sant di la gërëm ndax teral nga samay xarit teral nga samay mbokk waaye teral xarit ñii dana su ma la ndaxulee dama lay wax ni liggéey bi yombul te du yomb may saas Macky Sall kuy liggéeyal moom doo sonn te it kuy liggéeyal moom day yomb ndax li man ma ngi ci Macky ngi ci santé Macky ngi ci agriculture bañ ki la ministre de la femme indi ay financement jox ko jigéen ñi moo tax tey bi may ñëw ne woon naa bu may ñëw du yomb xam ngeen tax du base la àndal responsable xale yi jigéen yi yor seeni base ma gunge ndax gis ngeen fi mbumbaay d'abord laa leen di jëkk a wax ah, ah dina xumb ndax loolu sunu culture la bokk c'est le contexte euh, socio-culturel du Sénégal lu mbaay amul kon yéen ñi du ngeen fa ñëw sargal bi comme ni ma leen wax du man maa ko namm sama famille ñoom ñoo ni à travers sama eh, sama élection dañoo bëgg sargal président pour wax ni président lii mu leen defal lii mu defal seen doom lu lu leen ñor la pare nañu pour liggéey ak moom pare nañu pour liggéey pour ñu réélire président de la république loolu moo indi sargal bi mais defe naa ni mbumbaay amu ci soo amee gan di nga ko teral defe naa amul benn débordement bu fa am. lan lu bees euh, li ma fi indi. mooy d' abord être proche des populations. damay jege population thiessoise dama leen di déglu dama bëgg xam seen mébét xam li ngeen xam ni moo leen metti pour su ma ci mënee saafara ma saafara li ma mënul saafara ma relayer ko à un plus haut niveau pour ñu saafara ko donc xam leen ni doomu Thiès dafa ñëw pour déglu waa Thiès pour déglu tawatu Thiès déglu mettitam pour ñu àndandoo trouver solution si loolu par-delà de loolu dama bëgg Thiès ni mu melee woon ville bu exemplaire Thiès ñëpp dañ ko xamoon ci propreté loolu laa bëgg ñu indaat ànd ak jeune Thiès yi ànd ak yéen ñii ñu liggéeyaat Thiès ba ñëpp koo xamante ni gis na Thiès dina naw cees ndax changement bi fi am mooy sama yéene yàlla mooy mottali yàlla na sunu borom mottali. boo génnee doo gis ay xale yi seen ñu ngi taxawaalu fu nekk ci Sénégal loolu nag du état ñun ñëpp ñoo ci war a bay sunu waar sunuy waajur dañ doon aar dañ doon tette dañ doon yar xale dafa daan nekk ci peggu yaayam comme li ñuy wax ñun nag. ñun ñoo wàcc suñu ànd ñoo yaratul sunu doom loolu moo tax li fi xew yëpp xew fi wante yaakaar naa ni ñun ñëpp communauté bi suñu àndee xam li ñu bëgg xam fi ñu jëm xam ni place su xale mooy si biir famille am yàlla dinañu dimbale ba xale yooyu nekkoon si mbedd bi dinañu dellu si biir kër yi. sa yeneen ni image boo ah defe naa lii juñu day na boroom xel et lii ku ko gis war na la réfléchir loo su fekkee ni yow nit moo la tax a jóg da ngay teg sa personne fële teg sa yëg-yëg fële nga liggéey ngir nit kooku di wax ni bàyyi faalu président lañu nekk ndax dañ ko gëm dañu gëm yéeneem bi mu am ci Sénégal et pare nañu pour accompagner ko et sans unité mënuñu def dara donc ñu nekkandoo benn dank di dóorandoo di xàccandoo loolu mooy tax pour ñu mën a gañe et yaakaar naa ni ñëpp taxaw nañ ci ñu ngi koy doxee et suñu yàlla dimbalee dinañ ko réussir ba réélire président Macky Sall en 2019. merci. oui. madame la li may wax mooy dama bëgg yéen journalistes yi ngeen jage sama ministère créé nañu site bi bonne gouvernance li ngeen ci war a wax yépp pour démonter benn par benn lii yàqkat yi di wax mu ngi seen portée mën ngeen ci am accès fu mu nekk nii bonne gouvernance tous les clignotants sont au vert dama koy wax sama baat ci kaw mën nañu toogaat ci yeneen jataay ma faram fàcce ko benn par benn lu tax ma wax loolu jege ci leen sama ministère xëy na naam li ñu bëggoon am yépp amaguñ ko ndax bi ñu adhéré ci MAEP ba tey ñu ngi soog a 2012 la ñu commencé wax bon gouvernance 2012 ak léegi yàggul yàgg na yàggul ci réalisation yoo xamante ni président def na ko ci mais yàgg na aussi ndax sénégalais yi seen attente dafa bare woon loolu attentes yi elles trop fortes donc li ñu doon yaakaar ak li ñu am xëy na méngoowul wante mën naa ni que ni dox nañ ci ay jéego yu yu rëy a rëy rëy. merci comme j'ai dit tantôt il les bourses familiales et vous avez vu de vous-même le témoignage de cette dame qui a dit combien et comment ces bourses familiales ont changé sa vie ont changé son vécu son quotidien elle est passée de d'une étape T à une étape T5 Et je crois que c'est la meilleure confirmation du travail qu'abat le, le, président de la République au Sénégal et précisément ici à Thiès. Euh, Madame le ministre, qu'est-ce que vous répondez euh, à ceux qui ne vous connaissent pas et qu'est-ce que vous comptez apporter concrètement comme plus-value euh, dans le potentiel du chef de l'État à Thiès Est-ce qu'on a besoin d'être connu pour travailler Je dirais non. Je suis de Thiès. J'ai grandi à Thiès, j'ai étudié à Thiès et j'ai fait les bancs avec des Thiessois. Vous avez entendu le directeur de la protection de l'enfance. Je suis une fille de Thiès. Peut-être j'ai quitté Thiès très tôt, mais ma famille est toujours là. Une et je ou demeure. Une je politique La Je suis politique. J'ai toujours été politique, mais à cause de mes obligations professionnelles, je ne pouvais pas vraiment être visible sur le terrain. Merci. Le défi maintenant, c'est la réélection du président. Ensemble, nous allons président Macky Sall en 2019, Inch'Allah. Euh, vous insistez surtout sur l'unité. cest à la famille présidentielle n'est mais j'ai l'impression qu'on doit taire les égaux. On rien que pour la euh, réélection du président Macky Et je crois que en étant unis, en travaillant étroitement la main dans la main, on peut réussir ce pari. Il a fait des réalisations, il a eu un bilan fortement positif, donc sa réaction est là et c'est bien possible. et... de euh, euh, une question sensible et un peu ambiguë. Euh, Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement, euh, euh, Sensible, je, je non. La protection de l'enfance n'est pas sensible. C'est nous qui avons dérogé à la règle. C'est nous qui avons mis de côté nos valeurs. Nos parents nous protégeaient, nous éduquaient, nous encadraient et nous surveillaient. Maintenant, nous parents, nous avons failli à cela. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on laisse son enfant de 3 ans dans la rue Pouvez-vous comprendre qu'un enfant de 7 ans soit laissé dans la rue, livré à lui-même Non, nous avons défailli. Nous n'avons qu'à retourner à nos valeurs, retourner à l'éducation qu que nous ont légué nos parents, nos ancêtres, pour pouvoir vraiment remettre l'enfance dans sa place, qui est la famille, qui la communauté.